nee na Cheikh Modou Mamoun waajal na ko ba tàyyi waaye dina gis nag la koy jariñ loolee nag seere soos nag wooye fal na lu bari moom kon loolu la ñuy fàttaliku ne sëñ Muntaxa la ko sëñ Mamoun dénkoon téye na ko jàpp na ko ba gunge ko ba mu àgg fa jëm nee na loolu ak cant dong la fay sëriñ bi fekk nee jébbal bu am solo yóbbal bu am solo yóbbaale na ko fa yóbbal bi mooy ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla nag ñun koy xamee boo amee ngërëmal ko dox sa digganteeg yàlla nee am nga ngërëmal yàlla kam sëñ Modou Mamoun bu amee ngërëmal sëñ Modou Mountakha amal na ngërëmal sëñ Touba loolu mooy ngërëmal yàlla loolu rek moo si am solo loolu rek la ñuy seere kon cant gi nag moo dugg si biir seere si ak taraanga ko defal ak mbir mi ba amee ba léegi dara da see génnul sëñ Muntaxa ndax ba ñuy toppatee jëmm ji moo wax ak ñu war ñoom sëñ Moustapha Abdoul Karam mii sa lañ ko woo mu nekkal sa sëñ Muntaxa ba loolee yomb lool sëñ Muntaxa woo sëriñ Cheikh Anta ne ko sëriñ Cheikh lappet ko yebal si moom ñoo ñu taxawul ko bis bi yëpp nag am si ba sëñ Muntaxa yebal leen. nañoo ñëw taseeg moom daaru mu gàttanduwaat ñu si diggante bi ban fekk leen ndula ambulance bi paan ñu def ko si oto sëñ Muntaxa bum ñu jox indil ko ko fii kon dara génnul sëñ Muntaxa ak sëñ Modou Mamoun kon dara nag du si hasard lépp di passeef di dëgg bu ànd ngir yàlla lépp sotti si rek nag lépp di barkeb sëriñ bi lépp nag ak cant rek la sëñ Muntaxa sant na ñëpp ñoo ngi delloo njaal mi sëñ Siidi na ko Anta waxee woon rek Siidi mooy borom kër kii mooy sëñ Ibra Ndar kon bu fi lii xewee lépp lu sëñ Muntaxa di def si moom lañ koy askanale ñoo ànd koog moom lépp di mbiram waaye sëñ kër mii ak sëriñ Saalu mii ba amee ba léegi ñoo ngi jokkoog ñoom si leen fekk si guddi gi ñu taxaw ñu wàcce ko taxaw lépp ba si jotaay bii kon lépp rafetal nañ ko nee na mu ngi leen di seeral ne cantuk mun Muntaxa ak lu si waay def rek sëñ Muntaxa nga ko defal kon mbokk taal bi yëpp tamit ndigal laa ngi noonu yi sëñ Modou Mamoun tafee xam yi ak gindikoom ngoog yi nan ko ko sàmmal ginnaaw njabootam gi ay mag yi jëmm leen gis nañ lan def ñu doon ko ànd moom nan ko fa muy sëriñ siidi muy taaw si njaboot gi ndax lépp luñ si def yii bu yiwoo dina ko fekk foofu lépp lum ngir yàlla ngir jëmm sëñ Tuubaa it ko fas yéene wéel ngir yàlla rek